li ñu def rek mooy di ko rafetlu rafetlu rek parce que wàññi moom lu mu ci mun doon même su dee ñaar dërëm moo la dañ koy dañ koy dañ ciy kontaan et vraiment di ko saluer ñëpp sénégalais yëpp d'accord nañ ca benn biir comme ni ma ko waxee léegi que volonté bi yéene bi mu ngi fi bëgg nañu def bëgg nañu wañ mais li li erreur bi mooy nañu moytu yàkkamti nañu moytu précipitation nañu moytu agir parce que ñun ñoo ko yéen a ko waxoon gars yi wax leen ci rajo yi ci télé yéen a ko waxoon yéen nga def ko wàññi baax na lool mais gis nga li mu mën a jur déjà fi ñuy waxee ni dëmb tey suukar commencé na manqué Dakar donc dinañ am problème suivi ak problème applicabilité li am solo solution yi ñaar la b bi mooy fexe ba commerce bi ñu dexaat ko ci loxo sénégalais problème suivi applicabilité beneen bi soxali suñu mbay mi la mettre les milliards qu'il faut matériel agricole bi doy accompagner baykat yi ñu aménager suuf si ci ñaari at jàpp naa ne ci ñaari at du ko gën ngaa yéex gën ngaa yéex si ñetti at dootuñu jéggaani ceeb dootuñu jéggaani meew dootuñu jéggaani dara lép dina des fii dootuñu wax maintenant baisse de prix vraiment loolu daal moo ci solution bi et foofu la ñu war a dem